entre parenthèses. ñëwal Touba Cheikh a Dieye ñëw na fa ba mu fa ñëwee ne dana def toujours rek la ndox mi ba mu ko waxee itam la ma defoon sama xel mooy bëgg na ko waaye du na maa doxaat ba ñëwaat fii di la waxe waxe ndox waxum waxi ndoxum Touba man na maa ñëwaat fii di la ko wax ji bi mhm. waaye su boobaa it damay gëm nañu waa Touba ñoo indi problème waaye du ñoom ndox ma fi mu ne nii ma nga xel mhm. sama kër man sëñ Sidi mii mi ngi nii di la dégg mhm. mi ngi ni toog kër ga ndox maa ngay xel fa dëgg yàlla defar na ko ma ngay xel yab yab na fay eh, defar na Touba ba Touba di xel Sam benn quartier la xam ne ci lañ liggéeyee forage ba c'est pas normal. Hmm. dégg yabal na fa ay techniciens ñu def seen i pexe techniciens yi sonn fa lool am fay fan. moom seen i moom moom si moom ministre bi. Hmm. am fay fan ba ndox ma ba ndox ba ndox maa ngay xel loolu bilan la man xam naa ci dara. nga xam nga dara ndax loo dund la. Hmm. bëri na daal mais bëri na bu ñu bu ñu kii sax duñu fi jóge. mais mais sëriñ bi. Euh, yegg si naa nag daanaka ci ci fi may joxe kàddu gi ñii di sama suma xarit yi internautes yi parce que euh, jël naa ci ñetti laaj yoo xamante ne ni bëgg naa la ko ñoom mag ñoom ay defandoo émission bi ci njëkk mooy nee na ñoom kii xam naa posé li peut-être patriote la nee na moom patriote la mu gis benn vidéo bu jur coow mooy bu euh, njiital protocole bu le premier ministre Ousmane Sonko di Jibi Gueye Ndiaye ah, di di saafonteeg Euh, ki fi nekkoon ministre de l'intérieur di Antoine Félix Abdoulaye Diome mm. euh, mais saafonte gi jur coow waaye muy laaj sax xalaat par rapport ak vidéo boobu noonu waaye man dama koy contextualiser ndax yow itam dundoon nga lu ni mel su ma juumul ah euh, waaw yow gisoon nañ benn foto boo xam te ni nga àndoon ceek Antoine Diome mu juróo mu juróon coow déjà moom laajam bi daal mooy noo jàngate vidéo bi waaw loolu moom man dinaa placé pour wax ci parce que situation yooyu man daloon na ma te xam naa ne moom en tant que euh, Djibi Gueye Ndiaye bu fekkoon ne tiré na les conséquences avant muy dem du ko def parce que man yow nee naa ne lii man ba ma koy def te foogoon naa ne du dara. Mm-hmm. waaye yëg naa ni yegg na leen foo xam ne bu dem bu doon tey. du ma ko def. après bu ma ci jógee itam jot naa ay interpellation yoo xam ne sax amaana ñoom ñoo kawe Antoine Diome ñoo ko kawe fuuf. te damaa jaral ma taal sama oto génn dakaar far hmm. li yi naan jóg fañ koy waxee daf ma koo jaraloon hmm. le fait que rek bëgguma ndax bii bi mu amee nee naa nit ñi laaj nañ ma ne ma leeralal ma ne bu amaatee moom duñ laaj leeral dañ lay dañuy daal di gëm ñoom li ñuy jot rek mu jax hmm. xëy na loolu moom dem na ba egg ci kii muy jibigee Gueye wax dëgg yàlla man de awuma ci moom benn problème man su ma ko gisoon ah, mu fanaan kër Antoine Diome añee fa reere fa ndekki fa ànd ak moom ñëw këram añee fa reere fa ndekki fa di maye doomam woo ko ne ko kaay mayel ma ko man du tax ma am sikki sàkk ci moom hmm. wax dëgg yàlla hmm. du tax ma moom hmm. te itam lii gis naa ne problème nekku ci ndax doone ba mu fa demee wala ba mu gisee ak moom ci diggante bii ñu bii ñu ko vidéo wala ñu caméra ko ci gisuloo mu wax fa secret bu dox diggam ak ak Sonko gisu kenn gisu ko fa gisul mu wax lu jëm ji digganteem ak sonk te nag gis nga man li ma gëm gis nga kii nii ñu koy tudd ñu koy dal ci internet moom Jibi Gueye Ndiaye amul woo ja xam ne Sonko du la ci mere bu ko yëgee ndax kii man toog naa mu toog Sonko toog Sonko turu Jibi Gueye Ndiaye man de ah bu ci mën naa mu ciy jaar de waaye man de ma ba fañ toog ba nañ jógee nijaay la nijaay lay wax sama nijaay lay wax mhm. dëgg yàlla sama nijaay lay wax même bu ko dee mbalak comme ni mu bëggee mbalak noonu sama nijaay lay wax même biñ toogee ci kanam sëñ Fallou sëñ Sohaïb bu mu ne ko sëñ bi sama nijaay yi nii fekk sëñ Fallou dana jóg leen ngeen jàll ci kaw xéwal yi sëñ Fallum 500 yëpp mu ko loolu sama nijaay dana ko bëgg a dégg ndax am njool la te am njool moom day bëgg a lekk te day gaaw a xiif hmm. dégg nga man see laa xamee ne nijaayam la hmm. parce que baat boobu la koy wax tout temps sama nijaay la koy woowee te ñii ñiy wax di wane ne maanaam Jibi Genjaay dafa war wala Jibi Genjaay dafa nangam dafa nangam si Sonko nit loolu loolu man sama position ferme la sama point de vue la boo xam ne awuma ci lu may sikki sàkk nit ku gën a doyloo ne Jibi Genjaay man man man gëw ma ne am na bugguma loolu man parce que nit la koo xam ne intimité am ah, man gë gëm naa ne sax Jibi Gueye Ndiaye xam ne lépp Sonko te taxul kenn xam ci moom lenn te yéen population yi yéen beneen nit génnee ne ba ma demee ci Sonko ci kaso ba moom wax li moom wax la yéen a ngi nii yéen journaliste yi benn ko laajee la mu wax la mu wax yenn patriote loolu ngeen dëgëroot loolu ngeen gëmoon nit nag doo ko gëm tey weddi ko suba doo ko weddi suba gëm ko tey loolu mënul nekk xam nga tax mënul ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa def benn ko benn xare bi mu defee xare bi li ñuy wax xasuut badrin di def li ñuy wax euh, tajassusaat maanaam di xool terrain ba fan la waa Quraysh sin toll bi muy wër ba sonn gisul dikk toog ci armée bi mu yónniwaat ñaari nit Aboubacar ak Omar ñu dem wër far jàpp ay xale ci benn teen bu ñuy wëgg ndox ñu jàpp leen indi leen fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli fekk ñoom bëgguñu daje ak waa Xuraysin te ñoom Xuraysin rek la yàlla bëgguñu daje ñoom ngir xeex ak ñoom mu nekk Badr mm-hmm. ñu ñu ne leen di Abou Soufiane moo doon yónni xale yi bi ñu sonnee ne kon Abou Soufiane moo ñu moo ñu yónni ñu bàyyi dóor ya yent bi daal sërmal ne leen yéen ñoom bu ñu leen waxee dëgg ngeen duma leen bu ñu leen fenee mhm. wax nañ dëgg Abou Soufiane leen njëgg ma ngeen kër ma ngeen di kar na mhm. si ñoo leen wax nañ dëgg yent bi ne kaay leen fii ma laaj leen mhm. ne waaw ku leen yónni ngeen ne ñu ne Quraysh ñu ne Quraysh Xuraysin ñoom nu ñaata nit lañ ñu ne ko xamuñu ko de lu ngeen lu ñu añee ci ay gileem ñu ne ko fukk ak juróom-ñeent yonent bi ne kon junni lañ wala wala manqué tuuti mm-hmm. moo ne leen kan ak la ñu naan Sama ibnul Aswad Rabian Uqba Utba didim didim yonent bi ne leen aha Xuraysin nag jox na leen aw resam aw resam la leen jox mm-hmm. pour ngeen comprendre nit ki doo ko gëm tey weddi ko suba doo ko weddi suba gëm ko tey Jibi Géey Njaay bu leen ko sàkkal moo ku muy am lanteel ak ku muy jëflanteel ku muy waxal ak ku mu dul waxal te lii lii nii <laughs> da koy ragal loo de mhm. maanaam ni ñu ko fi bandee nii man de wax dëgg yàlla man awuma ci problème moom mhm. awuma ci yenn problème te gëm naa ne tey la gën a doon waaye sonko tey la gën a doon xarit sonko mais Antoine ak Sonko sax man nañoo am ay relation yu personnel loolu mën na nekk mën na ne kon foofu foofu leer na sa ah. position beneen bi mooy sa position par rapport ak euh, coow li ñu dégg fan yi nii jëm ci aju màkka gi vol yi perturbé wu Euh, mu nekk loo xamante ne nii à chaque euh, fois euh, dañ koy faral di nemmeeku mu ay coow ci anam gi ñuy demee pèlerins yi bu ñu yeggee ba ba ñu ñibbisi coow li day bëri lool sax déjà loolu tamit sëriñ Modou Astou Mbacké nga xam lool li may wax nii donc lan moo ci sa position bii nii. sa position mooy gis nga jibi doomu aadama lépp du ñu koy doon a jox faaw mu tatoné. yow mii en que journaliste sa première émission ba nga présenté ak yi ngay présenté il est trop différent il est trop différent du bokk. Mm-hmm. yonent alayhi salaam bi mu gisee Jibril première fois. Mm-hmm. bi mu ko gisaatee. il est gis nga bi mu gisee Jibril jaxaaru Hira xam nga lu ko Jibril wax. nan la ko wax da koo nag anta rasulullah yaa yonentam yàlla bi. Mm-hmm. yow la yàlla mujj ci ci jamono. dégg nga jàngal ko fa iqra ba ba mu jàng ko mu jàngal ko fa julli jàngal ko fa jàpp wan ko gannaaw yonent bi di ñibbi wàcc dojum romb nag asalaamaaleykum yaa nabi la yonent bi di ñibbi garab gu mu romb mu ne ko asalaamaaleykum yow yonent yàlla bi mu dem ba ca Xadija ne moom dafa jommi loolu la wax Xadija fi hmm. maa moom Jibril ne koy ob nga garab bi di ko wax doo di ko wax mu di ko dégg hmm. mu jàngal ko aaya di fàttiwu ko mu ñëw ne Xadija man damaa jommi hmm. jommi laa def man damaa gis jinne mu jommal ma loolu la ko wax ne est-ce que bi mu ko gisaat gisaat ko dem na ba egg ci étape boo xam ne maanaam ba ko gis tey si alaaji ma dafa xam ne xadijatun sakanat bil xalbi xaa ilatan lam yox sikal laaw fi daarayn laa tekki mi mais Khadija bi mu dikkee moo ko dalal ne ko doo dorox mukk gàcce dal dal mukk xam nga nu mu def ànd ak moom ne ko benn borom xam-xam ñu laaj ko xam nu mu demee en tant que yonent bi laa la wax de di laaj war xam war xata ne moo ko ci gindi war xata ibn Nawfal jaat li war xata tax kii maarawaa ulaha waxaa la naa muusu muusa sàkk fab tasim yi en tant que yonent laa la wax de bi mu dikkee moom moo koy wax ne ko maa ah yow de bu fekkee li nga wax dëgg la naa muusu muusa bi daan dikkal muusa moo la dikkal moom mooy jàngal yonent bi loolu moo koy jàngal parce que mooy moom yéen bi day door a ñëw ci affaire yi comprendre ko xale ji ma ko déedéet loolu moom wax ma leneen ga loolu moom munta ne moom loolu moom parce que problème mooy Xadija moom jaaxle na gépp ak jaaxle waaye dafa xam ne bu yonent bi nga yow nekk yaa ko def fu na nga ne da ngaa jommi loolu moom wax wax ma leneen ne ko nañ war xatam mu xool ba xam mm-hmm. ñu xool ba xam nangam ak nangam lii nag eh, mooy la constaté ci gouvernement boo xam ne day doo a falu. Mhm. gouvernement bi door a lépp lu ko concerné mën naa am ay rëq-rëq. Mhm. parce que loolu supervise lay doon ak comme jàng ak ñàkk jàkk mhm. ñàkk a mooy boo dee xool ñi nga xam ne ñoom la mbirum aj mi concerné ñii am ay Euh, ni nga waxee waxeeti ay ay licence nekk ay ay ay ay voyages privés ñoo xam ne dañoo yor seen i seen i entreprise du yóbbuwaate ñuy ñuy aji màkk ñooñu. Mhm. ñoo xam ne lañ amaana président bu njëkk moo doon joxoon état bu njëkk ba. Mhm. amaana ministre ya danga nga ci daan am quota dañu am ay quota daam ay bee màkk état koy joxe da am ay branlon loolu nag pouvoir bi dikkee branlon boobu bu daggee rek ñoom dañuy néew doole. Mhm. ñoom. dañuy ne loolu te branlon bi état bi saxagu fi ñoom ba ñuy xamante ak ñoom ba ñu am ñoom relation. parce que actuellement nii gis nga ñuy yëngu ci wàllu fer. seen nii actuellement kenn liggéeyu ci ñu ngi doon ci taxaw. parce que ñi nekk ci ministère boobu noonu ñoom kenn ci ñoom ministère bi censé gu leen. te du leen jox itam pouvoir di liggéeyandoo ak ñoom. parce que mm-hmm. temps absence leen jël amagu ko. après bu leen changé ba teg fi ña ko doy ci liggéeyloo leen ñooñu mën nañ ko présenté dossier yi muy signé mm-hmm. waaye tey ku ñu defar lay jëkk xoole mooy ko àndoon na nga Macky Sall nga fi ne ba ko réglé mm-hmm. ñoom duñ ko man ko jéem duñ ko fexe voyage bi itam boo xoolee ñoom euh, ñu ngi leen orienté itam pour ci Sénégal Airlines Sénégal Airlines man benn compagnie mm-hmm. la boo xam ni man jàpp naa ne niveau bi mu war a àgg pour serrer euh, pèlerins yi yëggu ca daal. Hmm. ba tax na voilà am na lool sax. Hmm. ay retard yu am ci ujaaj yi waroon a dem demuñu te itam tey jii ren ji wax wax fii daal ren ko wax ngeen deel ko comprendre ujaaj ji problème ren lañ ko gën a dund. Hmm. Euh, li ñuy wax commission pèlerin pèlerinage bi. ñu koy coordonné ak commissaire bi. ñooñu jàpp naa ne président bi changé gu ci kenn. sensé sensé guñ ko ñooñu nag link ak relation bi ñu daan am ak autorités yi ci mën a wax ak ñoom waxtu wu ne ak mën a gis ak ñoom waxtu wu ne yooyu du du jàppandi ci ci ci ci autorités yu bees yi. Mhm. moo tax seen ak dem nii di waaj pour dem dana am mhm. ay jafe-jafe. bu ngeen demee itam bàgg ah loolu moom sóoraale leen ko te bàyyi ko xel lu ngeen fa gis. Mhm. ngeen muñu ko yàlla te xam ne. muñu ko yàlla waaw am na. koo ñuy wooyee seenub sàng seenub sang Moustapha alayhi salaatu wa salaam dox na pendant deux cent kilomètres yi ngeen dox diggante Makka ak Madina ci seen biir si sedd yooyu uh-huh. ci naaj la ko def uh-huh. te xamut sax yoon wa far uh-huh. dafa jël Amir ibn Fuhayra fay ko ngir mu xamu fa mu dund tàngoor woo xam ne egg na ci di nelaw nelaw yu métti ba jaan matt Babacar te yëgu ko egg na ci ba dem ci eh, mu daal di fay laaj soow ak lu ñu defar ci ndawal ngir bëgg jënd ñu naa xam ci fayal laaw waaw ñu ko gàtt bu yooyu boo xam ne duñ ko wëtal mu raay yenaat mu jooxal soow ma yellaaw macha allah loolu di jënd soow amul soow amul lum lekk amul lum naan ba mu jege mooy ay moo ci la la fa def ngir mën a lekk ba naan ci situation boobu bu ngeen demee muñ leen ko te xam ne la sa yajxalullaahu baada mhm. maanaam situation boo gis ni dund ko ma jafar xamal ne ci lu yomb rek lay mujj mooy président de la république ba Diomaye Faye daa waxtu yi mi ngi prison bi ren jii mi ngi ci kaso bi mhm. yàlla waxtu wu ne lu ma def rek dinaa ko def ci jafe-jafe waaye gannaaw bi nag lu yomb rek laa ci teg mooy li ñaan say jaxanulaaw siin gi dañuy wax ne xarfu tanfis la day wéyal mbir mooy lu xalsat naa mooy dana ñu def laahu baax da xusrin ginnaaw bu jafee la mu cay def mooy yusran ak jàpp ndax mhm. kon situation mën na critique ren mën na jafe ren waaye rek dana baax incha allah dina baax incha allah en tout cas ma leen di fàttali ne suba incha allah national bi jëm ci wàllu assise eh, yi ñu tegoon ci justice bi suba incha allah 9 la jafee di sikkat ah, mm, donc mu nar a nekk plénière ah, restitution wu lépp lu ñu jàpp ne ay contribution la ci plateforme jubbanti waaye tamit beneenu plénière boo xamante ne nii restitution la bu travaux yi jëm ci commission réforme modernisation ak scientifique donc xam naa ne Sénégal set dina leen ko dundal. Euh, di ngeen ko dund ak Sénégal c'est en temps réel euh, boole ci ak direct ngeen koy am incha allah foofee ca euh, Sicap di Diamniadio donc di waxtaan woo xamante ne nii ca ubbiteef ga vingt 28 mai donc kii di njiital réew mi donc moom moo ko ubbi woon waaye ñu nekk ci njeexital gi alors sëriñ bi man su may jeexal saa su ne rek damay bëgg laa xam. waxte lu ñuy gën di toog man ma lay gën di mel ni ku lay ñàkk bañ a xam euh, yi nga yëngu macha allah euh, xam-xam bi day sell lool man chaque jour ma wax ko ma moom day analyser loo xamante ne nii euh, ñi ñi ñi ñi ñi ñi ci spécialisé wu jàng ci njàngum tubaab ah donc sax xamewuñ ko ni mu koy waxee donc mu nekk luy flûte lu muy wax mi sëriñ bi euh, fàttalil senegal yi euh, xam naa ne laaj bu naqaree euh, tontu la mooy kan mooy sëriñ Modou Asta Mbacké ak ci lan lay yëngu. waaw ah, sëriñ Modou Asta Mbacké daf dongum daara képp la boo xam ne jàng na alxuraan na xam-xam fii Sénégal di wax nit ñi ne maanaam ñuy jàpp ne maa génnoon réew di jàngi wax dëgg yàlla mosu génn Sénégal pour jàng tax ñoo jóg moom waaw suñu masaa génn Sénégal dañoo jóg ngir dox suñu soxla rek waaye ñun fii lañ jàngee ci Sénégal njaay gi yéen ñu dem fenn ci Sénégal lañ jàngee. kon loolu fi nga jàngee lépp. waaw xam-xam yi ñu jàng alxuraan ak xadiis ak yu ci aju xanaa xam-xam yi ñaan yi ñuy yëngu moom am na ci wax ne wut nañ ko ci situation bi pour pour jëf waaye gis nga xam-xam yi yooyu alxuraan ak sunna hmm. ak xadiis ak xarut ak bayaan hmm. moom Sénégal njaay gi lañ ko jàng diggante Kaolack Ndar Touba jeex na amaat feneen fu ñu am na fi sëñ Modou Astou itam ginnaaw bi mu defee nii xalaat na ne métier ma mënta ñàkk hmm. ci képp ko am da ngay dund ngir maanaam jàppale sa bopp jàppale jàmm Mm-hmm. ñun nag li ñu choisir ko métier mooy wàllum lasraar ak wàllum faj. lasraar ak faj nag. Mm-hmm. al amray ni bu tafar xëy ni ñaari mbir la yoo xam ne dañoo tàqalikoo du dañoo tàqalikoo malgré nag ñoo même ñoo bokk même résultat ci mujj ga. Mm-hmm. ci la ñuy dañ ciy yëngu cest à dañuy def lu jëm ci wàllum xalwatu. ci koo xam ne am nga yitte. ci misaal. bëgg ngaa xëy doon ab directeur wala bëgg ngaa xëy doon ministre wala bëgg nga lijjanti loo xam ne ay procédures yu kawe te nga gis ne lii mën naa jafe. wala nga bëgg benn poste ci poste yi kaw wala nga nekk ci benn poste bëgg a yéeg yooyu yëpp ñaare dañ ciy liggéey ci wàllum xalwatu wala ñuy def ay ñaan yoo xam ne dañu koy ñaanal niñ ci seeni soxla nit dikk na la man damaa am soxlas mhm. ay kayit maanaam damaa soxla visa pour tukki loolu moom jibi mhm. alhamdulilahi rabbil alamin mhm. loolu esti duñ ko loolu estivé guñ ko échec ci ku bëgg visa pour tukki wala ku nekk bi ci réew man damaa soxla ay kayit pour liggéey pour liggéey wala damaa soxla kayit pour ñibbisi maanaam li ñuy wax séjour leneen mhm. problème yooyu moom essuyer guñ ko. Mhm. problème mu këyit ak yu mel noonu ci wàllu asraar lay dugg. Mhm. benn ñu def ko ci kurus wala benn ñu def ko ci wàllum càngat yónnee la ko. càng <coughs> waaw nag ak càngat ñaar lañ kurus dafa doole càngat foofu loolu su ko xam. da koo gën a métti nag ay sarax da koo gën a métti ay cuuraay da koo gën a métti ab liggéey ci ñun ñuy liggéey. ñun ñuy liggéey kurus moom saa yoo ñu ci dugalee maanaam dugal nga ñu ci coono waaw soo ne ñu bindal jox ma. wala buñ demee ba gis nañ la war a bind jox la xawaa moom noppal nga moom ba noppal nga ñu ndax mettiwut waaye bu ci kurus duggee rek fanaan fanaanoon nga ñu ci ci dara yi yendal nga ñu ci dara yi mhm. waa tëjuloo nga ñu ci néegi xañ nga ñu sax lekk lekk ci lekk yi nga xam ne dañu amee ay ruux lañ mhm. lu jëm ci jën lu jëm ci yàpp lu jëm ci meew sax di ko naan yooyu yëpp saa soo xamee ne jëm loo nga ñu ci kurus rek